asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama fan yi comme ni ma koy waxee saa su ne nuyu sama soppe yi ak sama am di jàmm yi ak sama am di ay ndax dëgg du neex loolu mënu cee ñàkk foo mu am dëgg du neex man la nag man la jéeg bi jéegu YouTube bi jigéenu Samba Aïssa bi ak Moussa Dieng yaay Mama Nogay ah di wax ne nag tey nag damaa seet si koo xamante ne ni ndaanaan la ndaalaan kulli fadirin muy koo xamante ne ni neel benn muy sama yaay di sama xarit di sama soppe di sama idole di sama lépp tey nag moom laa seet tey nag maa ngi géejawaay géejawaay sama secteur marché njaareem tey falaa def descente falaa na la toj tasaare partagé waaye xam nga fu ma koy defee RTV laa koy defee mu bëgg nag ngeen topp ma xool sama invité bi tey xoolal may def lu ma neex. Tante ba Thiès maa ngi lay ziar man sa doom. Euh, maa ngi lay fay jëngee mbeg Saliou Dudu di nuyu Sénégal yëpp ni ma ko faral di waxee ndax li may wax saa su nekk ne Sénégal rek laa am. fi laa fekk baax baax fekk ma fi te nu ma am fi laa koy def. kon maa ngi ziar ko waxee dégg ngeen loolu nee na mu ngi ziar Sénégal yëpp waaye tànca ba man dafa am lu ma la bëgg a laaj dama lay laaj foo nekkoon temps yi damaa gis bi mbetteel jeexee ba léegi gisatuma la ci leneen ma gëj laa dégg gëj laa gis. ci écran bi waaye xam nga ne gëj wuñu gëjuñu gise duñu mën a gëj a gisee waaye dama la gëj a gis ci écran bi dina laaj yow léegi yow ci lan nga nekk daal loolu moo ma tax a déplacé wu ñëw fi ma sama caméraman bu ñaawal bi di Pape Ndour maa ngi fii rek sama kër maa ngi fii Cheikh Wade waaw euh, dew ma fenn nag vraiment xam nga tamit euh, pour ñu gis la ci dara da ngay xaar ba ñu woo la ci dara man noonu lay liggéeyee ndax ki nga xam ne moom ma jàngal ah, liggéey bii di alhamdu si yàlla xare ko ci àjjana see loolu la ma doon wax bien que nekkatu fi mais loolu ma loolu nu nu doon wax yëpp maa ngi koy téye ba léegi suñ ma woowee ci dara di gis ma ci dara waaye bu fekkee ne nag yàlla borom jàmm ñi ànd na ci euh, fin du mois bi mën naa am sax balaa muy jot dinañu reprendre at mbetteel ci kattanu yàlla ak baaxam. waa ay ca kon mu ngi noonu ñi nga xamante ne ñoo doon xaar mbetteel gis ngeen mbetteel mu ngi noonu ci yoon bi di ñëw dégg ngeen taan caba ni mu ko waxee incha allahu rabbi dina ñëw comme ni ma leen ko waxee woo rek ndaanaan laa ku gore ku tabe ku gëm boppam ndax li mu fu wax ku gëmul boppam du ko wax duma dem ci ku ma woowut duma dem mu ngi nii ku ko woowut du ko dem fuñ ko woo lay dem ko woo du fa dem nii artiste si nekkee fu nañu cuuj fu nañu càpp fu nañu dem fu nañu dikk moom nekku ci ci lu am fu la lay dox ak ci lu am fayda lépp loo xamante ne ni ay caaxaan la rek boo fa reetaan ca ba doo ko fa gis macha allah mu nekk nag ku gore ndax alhamdu si mii muy wax ñu ñi ñëpp dañ doon liggéey ak moom yàlla def yàlla weddi waaye boobu ba léegi foo ko dékkee micro rek ak plateau bu mu toog rek dina ko ñaanal dina ko gërëm te nit nag sooy jàpp da ngay jàpp ku gore ndax bu ëllëgee boo fi jógee mu mun laa wut sa ginnaaw di la ñaanal di la wàccal kaamil te moom ci loolu lay dox tànca ba yow mbas mi fi mu toll nii yow mbas mi nan la la def mbas mi ni mu ma def bari na parce que tey ba suñu liggéey yëpp arrêté yàlla mbas mi la. kenn liggéeyatul nag. loo déggoon rek déggatoo ko loo doon gis tamit gisatuloo ko te nun amuñu lu dul aar bi. te aar bi nag dafa laaj ay nit daje. te comme ne nañu fa ay nit dajaloo la ñuy bañ. te ñun ku ne xam na tournage. tournage ñëpp nga fa. ñëpp nga fa di nga gis lu war a mat 15 personnes. waaw lu ko gën a bari sax da nga koy gis. kon bu ñu nee dajaloo bi dañu koy bañ ñun il faut suñu liggéey nag arrêté. mu nekk loo xam ne tamit metti na trop nag et puis du mettiwul ci ñun artistes yi rek kuy art kuy artiste rek yaa xam da ngay woy yaa xam da ngay théâtre yaa xam da ngay fecc ak loo mën a def rek amatuloo activité boobu arrêté na depuis bambas mi ñëwee moom nag su amoon jom ba ma dugg seen tudde ko mbas rek dee wàññi ko déedéet dafa amul jom xam nga euh, dama xaw a yedd sax ñu koy woyal bu ko kenn dama ne bu ko kenn woy xam nga dafa am euh, moom dafa bon bon carrément sax la def xam nga bon nga na bon kese may bon carrément dafa am moom dafa bon carrément laay léeg-léeg laa tëral ñi ñu ne laaj nga jël ñu yóbbu yomal xëyam bon de koo passé ñu di la way bu ko kenn way moom nag boo amoon xel xam naa daa déggul olof te nu Sénégal olof la ñuy wax waaye mbas ku ko wax rek lu bon la dégg loolu li mu ko waxee nee na mbas mi amul jom te nag wax na dëgg Youssou Ndour moom xam naa ne du ko way te Baaba Maal du ko way te ma joojo ñi ngi du ko way ndax ma joojo ñi ngi moom dem na dëgg du neex na ko yàlla yërëm waaw man nag dama bëggoon comme tànca ba ni mu ko waxee mas mi ci boppam ngeen bàyyi di ko wayak di ko taggat di ko defal ay vidéo te ngeen koy jànn ngeen koy utal buzz ndax lii mu def dafa ñaaw ñun artiste xiif nanu mar nan lekkatu naantuñu ñu koy jëlee fu ñu koy jëlee ah nga ni dama ut usine buy liggéey ay yar ah, waaw yar yu baax ah. sénégalais bu ne ma jox la bi yar ah? nu di ko dàq di ko caw di ko dàq di ko caw ba mu dellu Chine ndax fa la jógee nag <laughs> xam nga man man man xaw ma woon ne siin la jóge man lu ma ci xam man gis naa rek mu dugg ci dëkk bi def lu ko saf. waaye xaw xaw ah. mooy aéroport bu ah, bees bi foofu la waaj. waaw ah, léegi nag man tànca ba xam nga lu ma la bëgg a laaj. dama dégg ñu naan restez chez vous restez toog leen seen kër toog leen seen kër léegi yow toog leen seen kër yow noo ko sentiree ak noo ko noo ko jàngatee daal. xanaa nu toog rek ne croiser les bras te dana fekk nu fi nag. ndax rester chez vous da nga ñuy rasal dara waye nee na rester chez vous ñun ñepp nu tok élève yi jàngeetuñu commerçant yi dematuñu yow na nga ne nu rester chez vous te heure bu la neex génn te fekkoonu fek ñaari dërëm dama déggoon ñu ne dañuy joxe ceeb ak diwli nak ya ca and man de pepp ceeb duggul sama kër bi luñ sorté dañ ko jënd te ba ma nga ngi resté chez vous de ça fait 3 mois ma nga fi ma nga resté fi ma tok man ak sama njabot te yor njabot nak ñu leen di di leen ñuy dund nak bëccëg bi ñetti tal weer wi juróom ñeen fukki taal ndaanaan ko mën ak ko yàlla barkeelal. loolu ku dul ndaanaan doo ko def. barke Cheikhul Khadim yaakaari jàmm ñu mosunoo fande ndax fekkuñu ci nag. Ah, koo koy wax man. dama ko ne nag euh, Baye sàll ñun yaay suñu président. yow la fi sunu borom teg noonu sax euh, noo ci jàpp yàlla teg la fi. dëgg la ndax sa wennu kàtt sa wu soxna ak sa wu waa kër rek mënu laa fal. waa ñun fekkoon nga ne sax sunu ceeb di neen nuy dank nag wax dëgg yàlla ba ndakaaru ndakaaru ba tey ne nuy ceeb. waaye dangaa ñëw jox nangam ba pare wane ko ci port bi mu wàcc nga teg ko ci nit ñi gis ko. duggagul fii de géejuwaay maa ngi dëkk fii quartier Cheikh Wade fii ma euh, marché Njaarim gi rek laa dëkk mairie baa ngi ni ma jàkkaar lool gisuñu ceeb bi de restez chez vous reste nanu nag fóot sax defatuñ ko na mënu saabu dégg ngeen comme ni mu ko waxee de tàncaba ba chez vous dafa war a am loo mu àndal comme ni mu ko waxee moom nag ak faaleen la da ngeen koy comprendre ceeb bi ceeb bi faaleen yeeg jaañeen yeeg gayeen yi man damaa sonn ci ñoom fu ma daj ak ñoom ceeb bi ceeb bi ceeb bi ceeb bi wax léegi Macky tamit ceeb bi lan moo tax mu demee benn côté laa xamul man non non ci yoon danoo war a jox comme ne restez chez vous da nga koy joxaale dara mu resté waale ak li affaire bi dara waaye restez chez ci rien dara. tamit c'est pas normal. dem ak dikk. moom la ñu xam. damay wax saa su nekk ne ku toog doo ku toog doo togg. Mm-hmm. te fi ne dana toog nag te ku toog rek doo togg nag fii Ndakaaru mm-hmm. ngay fay luyaas di fay ndox di fay courant. ñetti weer yàlla. Mm-hmm. ci jigéen ju takk ndiggam rek ànd ki doomam di doon bàyyi faal. ñetti weer 3 mois. borom kër gi bailleur yi nga xam ne ñoo moom kër gi duñu la comprendre de mm. duñ ci jéem a wax sax mm, weer yu amee la 5 ñu woo la téléphone nga ne ko may ma ma dajale daal di jàmb guy jàmb daqaar segg ko doo ko doo ko suuka da nga koy xorom woo ko jox ko ko ñu ne rek ba tey resté chez vous. nga jaalaat weneen weer borom kër gi woola nga dajale jox ko ñun la resté chez ba muy 3 mois fan lañ jëm tabax si gaa ngi nii di ñëw sunu kanam ku la joxut ceeb boo soo ndax na jox xar moo rey ah fii toj na nag. man de kon dégg ngeen ni ko tànca ba waxee rek gis ngeen ni nga ko waxee noonu la demee nit boo ko naan toogal sa kër day fekk nga jox ko dara mu toogaale ak mu ñun artiste yi amuñu xamuñu toog ci kër koo ci gis nagam na sama genre gi ñun da doon damaa man moom nagam naa man man moom ku ma gis xam ne damaa nagam ndax trois mois ferme nga togg sa kër goroo yattoo dóoroo fayuwoo dóoroo attewoo defoo dara attewoo ñuy xeex gajjewoo màttewoo xam nga ne loola metti na man de man tamit gisuma ceeb gisuma dara maa ngi dëkk ci géej waaye comme ni ko tànce ba waxee ni gisuma ceeb gisuma diwlin waaye nag yàlla yaa na ñun ay taalibe mam Cheikh Fall ay taalibe Serigne Saliou lañu ay taalibe maam borom Touba lañu ñun lekk ak naan du nu bàyyi fenn heure bu ñu ko soxaa rek dañ koy am dëgg du neex ah? looloo taxoon ma ne naa ñëw nag seet si tànc ba ba fas yéene waxtaan ak moom comme nag nee na ma mbetteel nag mu ngi ci yoon bi di mu ngi ci mbett mu ngi ci yoon bi di ñëw macha allah ma di ci kontaan di leen ñaanal yàlla ñu eggale ak jàmm ak salaam tànca ba sa dernier moo lan la. sama dernier moom mooy di sant yàlla ay yonent bi Cheikh Ahmad Lamine Bara Mbacké sëñ Fallou ma yaakaar ku dul moom ku ne xam ma ci moom euh, di sant tamit sénégalais yëpp ah. euh, seen suite bi tamit vraiment RTV dama ko doon dégg rek wax dëgg yàlla. mais tey bi ma fekk see tamit kontaan naa ci torop kontaan naa ci loolu nag wax dëgg yàlla waaw sama kër la ndax eh, tey samay doom rek ñoo fi ñëw di kii nga xam ne tey ma toog di def ak man interview bi ak caméraman bi yëpp la ñu wax dëgg yàlla leer na ma leer yàlla ne su ma lambee ca foofu tamit RTV ku ma fa daj rek sama doom nga kon donc sama kër la moo tax bi ñu ma woowee rek ma daal di leen la xamal leen ne mun ngeen a ñëw waaw mu nekk nag loo xamante ne dama ñaan yàlla mu yaatu yàlla teg ci loxo RTV dem ca kanam barke Cheikhul Khadim yaakaari jaam ñi waaw comme dégg ngeen Tanthiaba ni mu ko waxee waaye nag Tanthiaba dëgg la site bi sa site la muy RTV référence ñu naan ko waaso sa site la képp koo xamantene ni bëgg nga site bi wala soxla nga site bi rek da ngay def 77 nga def 225 43 75 bu ko defee rek jéego YouTube bi day daal di ñëw fas yéene jàkkaarloo def pello daal di jàkkaarloo ngeen toj tasaare def lu leen neex waaye nag Tanthiaba man dafa am ci benn émission bu ma lay dégg muy émission bu doy waar boo xamante ne man su ma koy déglu damay jël sama téléphone dugg ci ci kii bi dugg ci émission bi wax sama xalaat léegi nag ma bëggoon nga wax askan bi émission bi fan la ak kañ ak kañ la bu ko defee ñu di ko déglu parce que émission bi émission bu am solo la loolu laa bëggoon. waaw waaw maa ngi koy defee rajo Convergence FM 103.9 mooy fréquence bi. foofu mu nekk fii ci avenue Bourguiba soo bëggee dugg ci émission bi 88 628 00 34 mooy numéro bi nga ciy duggee xam nga dama dugg ci biir askan wi yàgg dugg ci biir askan wi nag. xam métit yi ci nekk ak jàngaro yi ak naqar yi ak jànkantoo gi ci biir kër gi moo xam couple bi la moo xam bon bi liggéey ci kër gi moo xam locataire bi moo xam ku mu doon foofu laay dugg nag man defe naa émission bi passé bi ngay dugg yow xool nga duggee te da nga làmb rek daj ko sa fit fitee ko dugg ci kaw mettitu doomu aadama ku ñu teg doomu aadama te muy jigéen kese ñu teg ko naqar ba lépp passé tamit jank bo xamné vraiment duñ ko torturer sànni ko ci mbedd mi mom la def émission kon mbokk yi émission bi fofu lay amé ci radio conversation FM 103.9 mooy fréquence bi mi ngi fi ci Awani ba immeuble Lambert fofu lay émettre <laughs> ay ca dégg ngeen loolu kon ma bëgg yéen ñëpp na ngeen ci bàyyi xel di ko seetaan di suivre émission bi ndax émission bi dafa am solo lu am solo rek moo fay jàll te ki ko fay def naanaan la kuli fadirin comme ni ma ko waxee rek mooy Tandia Ba Thiès tey nag ma ñëwoon dalal ko fas yéene ñëw nag seet si ko seet si naa ko li ma ko bëggoon laaj yëpp laaj naa ko macha allah aw ma ci benn problème mu tontu ma directement mun naa ne li ma am ci émission bi gis naa koo am ci émission ñëw rek démarré amul coupé amul arrêté amul dara loolu xam nga ne ndaanaan na koy def ku dul ndaanaan mënoo ko te nag nii mu ñu def ci këram gi tey ku soxor wala nga iñaan wala nga siis wala nga am rab bi bañ ay nit doo ko def du woo ci duñu duñ ko ne ñu ngi ñëw wala ñëw bett ko ci bundu këram gi muy dem tudd ñu egsi rek mu ne egsi leen ku soxor mënu ko ku iñaan mënu ko ku iñaan du ko tànca ba nag mu ngi nii muy nit ku baax nit ku laabir nit ku bëgg njabootam masha Allah respecté ñëpp bëgg ñëpp man dama koy ñaanal mu gudd fan ndax man xam naa ne bu guddee fan dina ma arrangé parce que mooy sama royukaay di sama yaay di sama idole di sama lépp may roy ci moom bëgg naa nag am paasu màkk bu ma ko jox ba mu yóbbu ko màkk mu aji ji parce que jaral na ma ko dëgg du neex may wax nag waa RTV xoolal ñàkk maa jàpp nag wóorul man jéegu YouTube bi ndax fi dëgg fi réew mi toll ak ci moment bi ñu toll man jéeg bi maay toj maay partagé maay tasaare maay def lu ma neex man taaliba Serigne Saliou bi lii la yàlla dogal